information. xibaar bu doy waar la ñépp ko déggandoo muy ñenn ñi si site d'information yi ñoo ngi koy wax Waly Balago Seck nee tey jii ci aljuma ji lay bàyyi waay gannaaw bi mu amee gént gu doy waar bu mu gént. loolu nag xam naa dana doon naqar tiis ci ñi nga xamante nii bëgg nañu Waly Seck loolu doone Faramareen waaye est wax ji. lu dëggu lu tegu ci yoon la ndaxte kat buñ fàtte nañu ci mois d' avril poisson d'